xam nga Afrique dafa dañu tënk Afrique. Mhm. donc ñun africain yi même en matière de communication satellite sax dañ koy loué pour mën a émettre. justement waxatuma nag problème mu vaccination wala problème mu médecine. produire sunu sunu aspirine sax. Mhm. dañ koy jébaani. je pense que il est temps lenn rek laa xam ne nañ ko siy moytu mooy alal ñu siy def ñu ñu koy nootee di ñu ñu ñuy jox alal boo xam ne. donné par la droite donné par la droite et récupéré par la gauche. surtout mhm. en matière d' industrie loolu moom il faut que ñu kii ko sunu souveraineté par rapport ak euh, yenn secteurs yi dañ ko war a mën a moomal sunu bopp ñun africains yi. Afrique du Sud mu ngi produire yenn dëkk mar. mais justement même au Sénégal Institut Pasteur na ay jéego yu am solo.

commencé déjà. non Pasteur c' est un chercheur moom moo njëkk a ka trouvé vaccin ci microbe ak mhm. loolu moo waral tour bi institution bi ay français ñoo ko yore woon ñoo ko kii woon ba ñu commencé retiré wu mais ba léegi seen moomeel la léegi nag lan mooy li nga xam ne mooy li important par rapport ak Gavi mhm. fi ñu jëm mooy ni que gis nga Covid bi li mu wone dafa wane ay fragilité en matière d'urgence yi nga xam ne léeg-léeg bu taxawee ñun du ñu mën a am réaction bi parce que il faut que ñu wéeru si kenn mhm. te soo wéeroo si ki nga xam ne moom li ngay wut moom moo la ko gën a soxla doo ko am te am nañu chercheurs yi suñu ay chercheurs xarañ nañu université Cheikh Anta Diop ñi fi nekk mën nañu def recherche yi mhm. matériel bi dañ koy wuti dañ koy jëndi français yi bu ñu la ko joxul mais justement Covid bi li sauvé Afrique c'est pas le médical wala euh, euh, euh, paj gu war mais c'est justement xaw a dëgër loolu moo tax exactement loolu moo ñu xaw a dimbali yi exactement résilience africain yi peut-être bii pas ñu anticiper population bi nangul euh, seen seen seen leaders yi ñu mën a contourner. Mhm. Covid bi bu continuer woon su su Covid bi je parle pas en tant que. médecin à un moment donné le Sénégal n'avait plus de lits loolu rek benn benn. aspect la su su su su su Covid bi bu continuer woon lim ñuy lor moo doon gën a. Mhm. donc léegi il est temps sur le plan pharmaceutique. ñu mën a xool nan la ñu industrialiser pharmacie mais da xool gel. gel bi ñu doon raxasoo sax fii euh, fa am na fi benn société bu ko fi doon def pour bañ ko tudd mhm. dem nañu ba gel mënutuñ ko mentalaton ñu ngi ko doon produire fii dem nañu ba mënutuñ ko am mais il est temps ñun lu ñuy consommer en matière pharmaceutique mhm. en matière alimentaire en matière de consommable ñu xool Afrique nan lañ koy industrialiser ba nga xam ne kenn du ñu mën a